man la Khadim Cissé Touba marché Ocass euh, nekk fii ci marché Ocass kër sëñ Mor Fata Xari centre commercial sëñ bi nag ni nga ko gisee ak euh, taxawaay bi ak lëndamaay bi euh, jéggi na doye ci dëkk bu toll ni Touba ñu ne mooy deuxième capitale du Sénégal marché bi mel nii jékkul jaaduwul. Euh, Abdou Lahad Ka ñu ngi koy ñaan mu euh, saytu marché bu baax a baax ndax marché bi li fi nekk ci économie nekkul ci benn marché ci Sénégal kon nag gëtt gi ñu war a jox euh, marché bi joxuñu ko ko Abdou Ka joxu ko ko ndax bu ko sëriñ bi dénkee dëkk bi ñu koy ziar bu baax sëriñ yi moom sëriñ Abdou Lahad boole ko ak yi te mu nekk magum taalibe kon nag war naa saytu li nga dénk ca mu bokk ak mbokki taalibe yi jox leen seen cër bu bu matamal. ah délégué de quartier bi yi nekk ci marché bi wala ci quartier rek. waaw eh, délégué de quartier yi xam nañ leen mais ñoom duñ duñ mën a duñ mën a def seen liggéey ndax ñoom li ñu mën a def mooy dem wax ak euh, maire bi comme compte rendu yi nga xam ne moom lañ jëlee ci marché bi mais suñ ko yóbboo euh, duñ ko appliquer. ñi appliqué ñoo war a appliqué mais ñoom liñ man mooy gis li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne nii ñu ngi koy jànkonte ñu dem ca maire ba wax ko ko léegi nag li ci des mooy ki nga xam ne nii moo ko jiite ak ñoom seqal ko pour ñu appliqué ci ñoom lay des ñoom ñoo ko deful. Abdoulahat Ka su ma ko gisoon lu ma koy conseil mooy dañ ka dénk dëkk bi nga xam ne nii mooy Touba nekk ci Sénégal bokk ci dëkk bi gën a rëy ci Touba ci ci Sénégal ñu dénk ko. dëkk bi gis nañ ne euh, euh, am na foo xam sa laajee ko muy sancaane yooyu nga xam ne sonn nañ lool lool lool sax ba nga xam ne nii population bi nga xam ne nii euh, présidentielle yi fi jàlloon li tee ñu woteel président bi lool ci la mooy ñàkki làmp yoon jànguwaay fajukaay fajukaay yooyu yëpp ca moom mu ngi bokk APR moom am na moyen pour mën a liggéey dëkk bi ndax mi ngi ci pouvoir kon nañ li ngi koy ñaan mu gën a wàcc ci askan wi gën leen a jox seen gëdd gën a di xeeñtu seen i soxla ndax sëriñ sëriñ yi moo ko dénk te bi mu ko dénkee mu xeeñtu soxla soxla yi waat dëkk bi moo tax kon muy gën a wàcc ci terrain bi di waxtaane nit ñi di xam seen jafe-jafe eh, ñu mu xam ne da nga fee teg pour mu liggéey liggéeyal Serigne Touba amal ci occasion pour liggéeyal Serigne Touba loolu yombul ci benn dëkk dëkk boo xam boo loo fa liggéey Serigne Touba moo lay fay ñu dénk ko kon nag war ngaa gën a eh, waat bu baax a xool li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne am na si dëkk bi nga koy dénoncé boo ko boo boo fekkee sa doole attunu ko jege nga pouvoir nga waxtaan ak pouvoir bi euh, état bi nga xam ne mooy état Sénégal ñu dugal fi seen loxo bu baax te li fiy dugal liñ fiy dugal liñ fiy dugal ñu koy def fañ ko war a def. daam ci am bi de wax dëgg yàlla liñ si mën a wax bëri na trop que fi la ñuy liggéeyee guddeeg bëccëg ni ngi fi mais li ngeen ci laaj moom am nañ cawarte lool di ko ci tontu parce que bu dee wàllu mairie bi moom ñun gisuñu suñu bopp parce que marché bi saq gi moom foo ko takk wees na ko en plus li ma gën a mën a jooytu nag moom mooy insécurité insécurité moom sécurité zéro marché bi parce que fii nit day génn jënd dara génn léegi dugg fii balaa dugg oto ñu nangu ko ci moom boo ñëwee ci réseau bi fii presque li ma fi mën a wax bëri na fi trop réseau bi fi laay jaar guddeeg bëccëg mais mandi geeg affaire yooyu ma nga ni fi garde insécurité zéro mbalit mi nag moom maire bi jëriñu nu dara ni dañuy défar mairie dañuy défar marché bi sama place bi lima ma ci buntu bi lepp ñom ñoko dindi gis nga ko nam melon la dellu da gëna raw sax mais ñom ñoom ñu dara ñu dara waxi kese dal lañu fi nekkal bu ñëwé man nañu fayu patente ak yoy dal man nañ ko mais à part défar bi mom wax deug yalla ñun gisuñ suñ bop man de sama buntu place ama part personnel luma def mako ko defal sama bop man may fayal sama bop mbalit makoy tonni buma ci gisee lu yàqu makoy defal sama bop ñom nak wax do nga lan fi nekké légui seen délégué de quartier yi représenter mairie xam nga yàlla xam ne délégarisation sax dama koy dégg waaye leen de laa ko xamee bi ma demee di wut courant daal bi ma fa demee ci laa ko xam may à part laa ko mujj a gis délégué marché moom bu ne am na ci marché bi man yëguma ko gisuma ko gisuma fi délégué marché gisuma ko fi dama à part gisuma fi délégué marché Abdou Lahad Kade xanaa tur wi laa fii dégg ak xaalis buñ koy jox mais bu dee liggéey moom ñun dëriñu dëriñu nu dara man de dama sama bopp gisuma lu mu fi def assainissement bi zéro fi ne nii fii bu tawee ñun ñooy mujj jël ay nit ñu ñu koy defaral ñu koy fay mais ñoom ñiy defar ñun gisuñu leen fi des fois nag danañ fi ñëw jël benn koñ commencé buñ commencé ba ñëpp teg ci seen bët ñëw oto bi roñ ko yeneen quartier yi moom seen yoon néew ci fii ren defaruñ ko te daa nañ ko defar avant Abdoulaye Ka dafi nekk xaw ma maire bi fi newoon kan la mais daana liggéey fii defar ko koñ ba koñ mais ñaari at a nii yoo xam ne fii bu taay day fees dell buntu place bi day dell loolu daal laa xam ci Abdoulaye Ka budget budget mais budget boobu kañ la commencé yàgg na moom lañ ko voteel nii nii hmm. ah budget bi de comme ñëwagul mënaguma cee wax lu bari mais xañ na moom bu ñëwee te xam ni nit ñi xam nañ ko am na amaan amaana moom dina ci def loo xam ñun mën man te teg suñ bët mais aw ma ci yaakaar de mu yaakaar de mu aw ma ci yaakaar wax dëgg yàlla aw ma ci yaakaar parce que fii moom Touba laisser aller la presque ñoom bu nekké bu défé defee seen budget nyom jox leen ko ñom lañuy ñuy def ñoom danañ ko def mais ñun ñi nga xam ñun ñoy wa askan wi war ci gis suñ bop ñun de gisunu ko ci man de gisuma ko ci te ñima nekk li sax duñu jambat ko patente nak mom fayu ko mom man nañ ko mom mais lool dal la ci xam mais à part lool gisuma ci leneen lool la xamal assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh man la seeni jang délégué marché okas

ay magasin ak centre commercial lañ ñii ñëpp seen mbalit dañoo waroon di fay lu leen koy yóbbul ndax ñoom fayuñu tom taxe ordure ménagère fayuñu ko ñii ñooy fay lool ñii nag li ñuy fay boo demee fii ci kaw am na benn oto bu taxaw fii yor mbal euh, euh, keesam boo demee danga leen fekk ñuy tonni mbalit ma saa bés bés bu yàlla sàkk danañ am benn voyage walla ñaari voyage mbalit mi ku ko tuur si fii ku dajale dara indi ko fii mais marché bi xat na xataay goo xamante ni mënuñoo am nit ñu bale waaye ku indi sa mbalit boo ko defee fii oto bi yóbbu xam nga marché day law marché fii ne yéen ñi donc tey bu ñu la laajoon yaa nga ne marché nga dem ci marché ba nga marché yor place nga dañuy fay commune ba dañoo bokkut ak ñi nga xam ne dañoo ñëw pour daan fa seen doole rek waaye fayuñu dara commune ñooñu moom bu wax caaxaan demee ba dëgg des waruñoo kaas lu bari ndax mbir da nga cay participer joxe ca sa sa sa sa sa participation su ko dee bu ñuy bu ñuy nar naraale la waaye ñi nga xam ne fayuñu dara waruñoo kaas ñi war a kaas mooy ñii te ñii indil nañ leen ab oto boo xamante ni mi ngi fii ma lay wax nii. foofa la foofa la oto ba taxaw mbalit mu moo leen ko yóbbul duus yi ñoom ñoo uh, beneen oto moo fa nekk di ko manq semaine bu nekk uh, uh, semaine bu nekk nu mu tuddati commune bi dina joxe gasoil ñu manq duus yi tonni mbalit mi. jox waaye man de li ma siq ak moom mi ngi koy def ndax man de am na ñaari oto benn bi mooy tonni mbalit mi bi ci des mooy manque duusi léegi nag moo ma jox chauffeur jox ma gasoil am na personnel boo xam ne ñooy ton mbalit mi loolu rek laa war a siq ak moom siq ma ak moom leneen amaa nag ñi nekk nga xamante ni dañoo yor ay centre commercial ak ñi nga xam dañoo nekk ci kaw mbedd mi nii ñoom wax dëgg yàlla comme fayuñu dara commune suñu taxawalee commune di ko di ko bëgg wax dara wax dëgg yàlla danga damay dama leen laaj yow boobu question da nga ma ko laaj ma di la ko delloowaat mbir danga nga bokk ñu xam ne ca nga bokk waaye nag wax dëgg yàlla gannaaw ñii ñépp ñoo ëpp lii ñii lii lépp ngay gis ni centre commercial lañ ak ay kër yoo xamante ni ay kër lañ leen joxoon ñu ñu soppali ko ab marché waaye nag ñoom ñi bu fekkonte ne kenn ku ne yaa ngay fay commune bi li ñu doon ka danañ mën a kaas waaye kenn ñoom fayuñu patente la laa gis ñu di ko fay patente état la waaye nag gisuma loo xamante ni nun ñun ñi nekk ci biir marché bi nun man damay fay man nun ñi nekk ci biir marché bi taxe rurale bi ñuy fay par weer nga xamante ni weer wu dee wu ne cent bitig bu ne dana ko fay loolee ci lañ ñuy manqal suñu duus yi ci lañ ñuy tonnil suñu mbalit ñi koy fayee ko nga ne ñe ñokay fay ku ci bureau seen carnet nga ni leneen li ci dess nak man wax deug yalla duma ci mën sori waaw. Mbacke Sarr Touba daru marnan Mbacke Sarr nan nga gisee dëkk bi ak taxaay beeg yooyu noonu est ce que leer bi dafa na mu ah yaakaar naa nag liggéeyam na waaw ndax warna mana mën a bi dëkkub Sëñ Touba la mu leer nañ lépp daa war leer. waaw tilimaay bi tamit da wara a wàññi ko mom. mairie moom liggéeyuñu moom wax dëgg si yàlla liggéeyuñu liggéey ñu tamit waaye wa dëkk bi tamit na ma ko yalla jéggal ci ñima ko wara wax amna ño xamne tamit dañuy takkal ndax dañuy bayyi seen buntu kër dik ci mbéd wala kërug jambur go xamne commencé gut ñu sotti ca mbal ba kër muy doonub seen ba kër borom du yëkëti lool tamit ñun ñoo ko war a ñun talibé yi waaw. nga xamne ci yeen nii yéen liggéey est-ce xam ngeen délégué de quartier yi nga xamne ne loolu représenté ci mairie waaw wa ñom ñoo liggéeyut ñom ñoo liggéeyut de. légui yow bo gisoon Abdou hakka la nga xay conseil. xana mu def dëkk bi bam set wécc dëkk bi leer nañ nga xam ne ku dikk nawloo waa dëkk bi. budget bi euh, man de gisuma ci sama bopp te xam naa ñu bari na ñu bari ñu ci gisul seen bopp moom. Ah, waaw mairie bi moom mi góor góorgóorlu de waaye li ñu bëgg mooy mu gën a góor góorgóorlu waaye tamit euh, mboolem tamit ñun commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi tamit ñu gën a góorgóorlu daal ndax jàppale mairie bi bu baax waaye mairie bi tamit. xëy na li tax commerçant yi duñ nangoo di joxe seen xaalis ak yooyu dañoo gisu dëgg dëgg dëgg li bi war a liggéey ci dëkk bi waaye tamit euh, ñi nga xam ne tamit ñoo moom centre comme centre yi ñu nekk am nañ ci responsabilité ndax ñoom war a noonu mën a am lu jàppale mairie bi waaye maire bi daal moom ñun ñu ngi koy ñaan mu gën ñoo jàppale rawatina fii ñu nekk nii problème mu làmp yi problème yooyu yëpp waaye loolu tamit euh, yaakaar naa ne li koy jiitu mooy ñun tamit ñuy fay waaye fay gi tamit dañ ko war a teg ci ay yoon mooy ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi euh, chaque fin de mois wala chaque 3 mois wala 4 mois ñu am lu ñu indi loo xam ne dañ koy fay mairie bi ndax fii man yaakaar naa ne yàgg naa fii am naa fi 6 ans wala 7 ans waaye patente rek lañ fiy fay te chaque année lay doon te du cher ay 30 mille 60 mille maximum ay ay ay 100 mille yooyu. te jàpp naa ne yooyu tamit ñu koy def xanaa jurbel lañuy jógee ñëw fii kon am na loo xam ne waroon nañ kaa mën a jëriñ mairie bi ñun tamit loolu nag lii tax mu mën a nekk mooy ñu organiser organisation boo xam ne ñun ñëpp dañ siy jàpp ñun commerçant yi moom ba ñu ñu dara moom wax dëgg yàlla lépp lu ñu teg pour loo xam ne dana doxal marché bi ñun ànd nañ ci waaye nag ci kaw mooy après ñu xam lañ ciy def lan la ah man de kenn laa xam ne euh, moo ñu représenté ci mairie bi mooy Sini Dieng moo nekk ci biir marché bi wax dëgg yàlla non man bu ñuy def bu ñu watee budget mairie bi dinaa ko déglu dinaa gis muy kaas ay doléances commerçant yu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla waaye li muy wax lépp moom gisuma waa mairie bi jàppale ko ci lu bëri xanaa euh, euh, mbalin mi daal moom gis naa ne moom jàppale nañ ko ci daal waaye li nga ko war a jàppalee dëgg-dëgg jàppale wuñ ko ci. léegi ñu dégg que Touba budget bu 4 milliards la waaw xam nga budget bu 4 milliards boobu ñuy wax ñoom mairie bi sax soo leen waxee ñoom seen jëm bopp mënuñoo récupérer 3 millions yi 3 milliards mënuñu ko récupérer xëy na loolu la ñuy waxtee de waaye mënuñu ndax lu waral loolu mooy ñun ko war a laaj comme ñun ñi war a ñëw suñu laaj ñu ko xëy na gisuñu suñu bopp ci dëgg-dëgg li tax ñu war koo joxe ñoom bu watee ne 4 milliards lan war am su demee ba euh, année bi jeex yaakaar naa ne suñu xoolee ñoom 3 milliards yu mat sax waruñu ko mën a mooy mu gën a góor góorlu te euh, mbooleem euh, marché occas bi nag moom ci la war a gën a taxaw bu baax a baax a baax jàppale waa marché bi ñu xool problème mu sareet yeeg problème mu ñëpp ndax fi ne même ñun ñi nga am sa place fii fii nga seen nii si bitti nii ñun ñoo ko defar suñu bopp da mairie bi ko waroon defar ñu def génn suñu place ba ñu génn cent mille francs ñu defar suñuy caro defar lépp te loolu mairie bi ko waroon def ruq bi amul lampe amul courant amul dara te loolu ñun commerçant yi ba ñu ñu ko def bu ñu ñëwoon lañu laaj ñu ko da ngeen di joxe nangam nangam ñu defal leen nangam danañ ko def waaye nag manque d'organisation boobu am waye daal Abdoulaye Ka daal ñu koy ñaax bu baaxa baax mu gëna gor góorgóorlu wax deug yalla Touba naqari na yor lool waye nak ñu koy ñaanal tamit mu gëna gor góorgóorlu bu baax gëna jappalé marché bi ak suñu nga xamne mo ñu fa représenté muy Sini Dieng tamit bu sañon mom tamit mu gëna dox bu baaxa baax ci suñu côté yi ñun commerçant yi mo bañu ñu dara lepp lu ñu teg loo xam ne pour liggéeyal dëkk bi la ndax ay talibé Sëriñ touba lan té bu sañon dëkk bi Sëriñ touba moy dàq ci dëkk yëpp ndongo li Modou Baye Fall Modou Baye da nga gisé marché bi ak taxaay bi ak lamp yi nga xamne xam ne waaw loolu de mom xanaa suñ wax du ci bari daal ndax tax tax suñ wax du ci bari mooy ki nga xamante ne si mooy saytu wàllum dëkk bi ak wàllu lu mel ni wàllum commune ku mel ni suñ Abdou laxat Ka yaakaar naa loolu ci moom la leneen la ci def mooy barab bi nga xam si ne moom la nekk muy barabu marché bi muy barabu marché bi suñ borom dafa dogal mooy li fi li fi war a jàpp ni bari na te jàppandiwul lu mel ni eh, làmp yi ak yoon yi nga xam si ne mooy yoon yu war a normal yi ak yoon yoon yi nga xam si ne mooy ñi nga xam si ne ñoo ñooy daan seen doole war dafi jaar chaque jour maa ngi dégg ñu ñaxtu lu mel noonu rawatina barab bi ngeen taxaw nii. ndax barab la boo xam si am na nu meloon na meloon ginnaaw yàlla bu demee ba normal murid yii di fi liggéeyee ñuy borom sareet yii nii ñoom la woon bu demee ba man ba doomu aadama man fee jaar ay place di fi mën a tijj ko ginnaaw yàlla borom sareet yii la ndax fii barab bu yéeme la woon boo xam si doomu aadama ñëwu fi jaar yenn yi. bu demee ba normal na doomu aadama yi mën fay jaar yakana borom sareet yi li ma bëggoon nag mooy joxaali ci nak ci nak bu baax baax ak seen wareef joxaali leen seen gëdd waaw ta ciori nak bari na fi lool waaw ñoy ñoy ñoy ñoy ñoy ñooy tàllalaat suñu loxo dal ku melni señu sëñ ka euh ak ku melni Baye Ousmane Sall mi nga xam ci ni mom moy euh, jëriñu barab fi ci borom sareet yi waaw wax dëgg fa yalla dal ndax délégué de quartier yi représenté fi ni xam nga waaw ki fi ñun sun sun sun sun sun jëmm bëriwu fi daal waaye nag ki fi mën ràññee dëgg dëgg dëgg dëgg man kenn rek la muy Baye Ousmane Sall Baye Ousmane ndax man eh, fii ay tool laa ko def tool yi liggéeyukaay eh, ki fi jëwriñ ji nag mooy Baye Ousmane ndax man ci wàllum saret di lay yëngu te it moom bàyyi xel. ki ma fiy fekk si nag ku mel ne Baye Moustapha Gueye mii di toog fii di liggéey ak Baye Ousmane Sall mi nga xam te mooy jëwriñ borom saret di fii. waaw bu ñu amee lu ñu wax wala ñu am lu ñu kii daal moom la ñuy waxtaanee ci lu bëree bëri. léegi yow boo gisee waaw li ma koy conseillé mooy mu dolliwaat góorgóorlu te it bàyyi xel ñi nga xam si ne ñooy nekk fii di liggéey te chaque fin mois ñuy jël seen seen seen seen seen doole ak seen doole poos di leen ko yónnee di leen ko jox euh, kon yaakaar naa ñoom am nañ droit. Euh, wax li nga xam si ne moom mooy seen wareef leneen na ca desaan mooy Abdou Lahad Ka moom daa war a liggéey bu baax a baax ndax dëkk bii nii buñ ko jëlee bu buñ jëlee toll yi toll nii Touba teg ko ci loxoom di ko liggéeyloo kon yaakaar naa war nañoo mën a saytu di ñu bàyyi xel bu baax rawatina ñi nga xamante ni si dañuy jël seen wërsëg ak seen doole ak seen doole poos di ko dugal ci liggéey boobu noonu di ko jàppale ci lu bëree bëri kon moom ni doomu aadama yi di xàlle aw yoon jëmale ci moom moom war naa mën a xàll aw yoon jëmale ko jëmm yii nii waaw lool rek moom moom laa mu ci lu mu wax